Après la sonnerie, vous avez 30 secondes pour conclure. C'est ce que nous respectons. Merci beaucoup. Merci, Président. Monsieur le ministre, chers collaborateurs des ministres, chers collègues, bonjour. Avant de euh, parler des, des préoccupations sur le budget, j'aimerais dire ceci à la jeunesse de ma génération. Aux jeunes de ma génération, je dis ceci, ne partez pas, chers jeunes. Certes, la pression sociale est terrible, mais le pays a besoin de vous. vous les autorités, l'immigration semble ne pas être votre priorité car les millions dépensés pour l'accueil du président lors de sa tournée électorale pouvaient être investis pour créer des emplois. Votre responsabilité est aussi engagée. Face à cette situation, il nous faut un sursaut national, discuter avec les jeunes et créer une structure spéciale qui traverse tous les ministères, points d'agence qui ont montré leurs limites. Arrêtons cette tragédie, la mer n'est pas la solution, Il nous faut beaucoup de courage et de ténacité face à cette situation. Ensemble, il nous faut encourager le co-développement et permettre aux jeunes Sénégalais de bénéficier de conditions de vie et d'existence décentes dans leur propre pays. Chers jeunes, ne partez pas. Votre avenir est ici, notre avenir est ici, et un avenir meilleur se profile à l'horizon. Nous aurons l'occasion de changer notre destin d'ici quelques mois. Saisissons cette occasion-là Pensée pieuse à, aux jeunes de Fasboy, de Barni, de Tiaroy, de Mbourg, à Papitokara et à ces de jeunes qui ont perdu la vie à la recherche ou bien à la quête d'une meilleure situation. Monsieur le ministre des Finances et du Budget, gis nañ le président Macky Sall di def ay tournée tournée yi ñu gis ne fu mu dem rek day def day def ay promesse ne diw dinañ la jox nangami milliards xaw nañ jaaxle nag ndax bala ngay diggee day fekk yow budget boobu nekk spécifiquement sa budget ci loolu ma lay laaj promesse yooyu muy def ci milliards yi dans Kédougou Kaolack euh, Fatick euh, milliards yooyu ndax si budget bi ñu lay voteel yow mii nii di les sept mille trois milliards virgule six si lañ koy jëlee wala fan lay jógee beneen bi par rapport à l' élargissement de l' assiette fiscale wax ngeen ko mais man damay xaw a am inquiétude est ce que ndax buñ ko élargiré couche bi nga xamante ne si ñoom la ñuy jël ndax dinañ am seen pouvoir contributive dina mën a impacter positivement budget bi ba mën leen permettre ngeen am taux de croissance 9,2 beneen bi monsieur le ministre muy dellu ci euh, la pertinence des institutions waxoon naa ko daaw je le répète deux institutions yoo xam ne jàpp naa ne war nañ ko revoiraat supprimer ko wala ñu fusionner ko te mooy le haut conseil et le HCCT monsieur le ministre sénégalais yi sonn nañ bu ñu koy wax peut-être dañuy jàpp nit ñi dañuy wax politique timis na waaj a jot nga dox ci mbedd yi ñiy jaay fonde ak ñiy jaay cere balaa heure bi di jot fekk na ñoom ñëpp jeexal nañ parce que les sénégale na mangent pas à leur faim monsieur le ministre budget bi nga xam ne moom nga wax ci yan facteur ngeen teg pour am euh, taux de croissance bi nga xamante ne si même ngeen wax muy deux chiffres beneen bi lu tax defuñ loi de finances rectificative pour année bi nga xamante ne si moom ngeen génn je vous remercie